simile ay waay ñi faatu ci M23 gii bu ñu leen fàtte tribune yéen kay ne waa M23 googee woo nañ kon sénégalais yëpp ñu ñëw kon tey jëlee kon ci ajjuma ji ñaanal ñi nga xam ne kon ñoo jot a faatu ci manifesté yi nga xam ne ni mu ko nañu ko moo xam chrétien nga wala boog julit nga Cheikh Tidiane Dièye mi nga xam ne kon moo yoroon kàddu gee ne julit yëpp jox nañ leen kon rendez-vous te jumaa ji nga xam ne moo nekk ci Rue Carnot ci diwaanu Ndakaaru gii waa lan moo tax kon ba waa M23 yóbbu seen julli joo jee ca biir Ndakaaru docteur Dièye ci tribune yéen kay ne parce que foofu moo ëpp kon ay doomu aadama ñu ci gën a baree bari foofee la ñuy liggéeyee le populaire ne lan moo tax ba M23 dem di julli ji foo xam ne daa jege kon pale ba lool dara kon waral ko lu dul dem jege ji ki nga xam ne dóoraate daal kon la def métier le quotidien ne moom Abdoulaye Wade moo mais ci ay tànk Laurent Gbagbo la ne mar day taali laa ilaha illallah yéene kaay gi ne ah kay Papa Samba Mboup ne déedéet chef de cabinet wu président ne xanaa xamoon leen ne président Abdoulaye Wade fitna bi nga xam ne kon ni mu ko nañ ko ci biir réew mi fi mu nekk nii da koo mité mité mité mité mité ba mar day taali yéene kaay ma jëmbal jàngi ne la ma la wax du dañ Abdoulaye Wade ci ay tànk Laurent Gbagbo dëgg la nekk waaw waaw jaay doole gi nga xam ne kon ni mu ko nañu ko ci constitution bi mu koy caxat-caxatee jàppal bàyyil bi nga xam ne ni mu ko nañ ko ci biir réew mi ak doomu aadama yi nga xam ne kon ñoo ngi ñàkk seenu bakkan waa bitim réew ak wax ji nga xam ne kon ñu ngi koy wax di communauté internationale ba Abdoulaye Wade ak ës ësloom gi dëgër dëgër lu bopp gi nga xam ne kon moom la nekkee waaw bennoo sigil Sénégal ci yéene kaay gi ne nguurug Abdoulaye Wade gi ay waxtoo ko fi desee aha waaw waaw gars yi Moustapha Niass yi ne boo leen gisee tëb dal ak jàq rek tiis gi nga xam ne kon moom la ñu àndal danoo paniqué waa kër Abdoulaye Wade di tiitalaate wàllum intimidation yemuñ ca di sos yow ab nguur goo xam ne nit ñi kon dañ leen a weddi waa bennoo sigil Sénégal goo gaye naqarlu nañu dee yi nga xam ne kon ni mi ko nañu ko ca Podor gaye ak bu Mamadou Diop ci diwaanu Dakaaru gile nañu conseil constitutionnel gàcce dëgg mooy décision bi nga xam ne kon jël na ko kuréel gi nga xam ne kon moo njaboote kilifa diine ci direct info ne c'est pas vrai conseil constitutionnel gii waree fam la def Abdou Wahab Gaye ak ay gaayam ne conseil constitutionnel lan dul bàyyi kon nit ñi di ko toroxal te ñoo ko fi teg waaw Abdou Wahab Gaye ak ñi mu àndal ne danañu organiser kon ab marche bleue ngir war adduna yëpp ne Abdoulaye Wade kon la askan wi ci boppam daal di àndal waaw Abdou Wahab Gaye mii ak ay gaayam yemuñ ca ci direct info ne la ñu war a def mooy état de droit respecté li nga xam ne kon moom la cartum réew mi daal di kon santaane yéeni kaay yi ma jàmbal jàngi ne conseil constitutionnel koo kee dana jàkkaarloo kon ak waa union européenne di tubaab yi parce que tubaab yi li ñu bëgg a xam mooy candidature Youssou Ndour gi lan mooy ndeyu conseil constitutionnel di ko rejeté ah lu tax ba Youssou Ndour bokkul kon ci élection yi moo jar a laaj de lañ laajaat mooy ajjumay tey gi libération yéeni kaay ne boo sàgganee kon mu doon ab ajjuma wu ndeer ni talaatay ndeer fa ndeer démb kay mooy ca duwaanu Kaolack gee direct info ak laas ne kër Ahmed Khalifa Niass gee dañu koo caxat-caxatee taal ko ak otoom yo marti taali waaw waaw parce que Ahmed Khalifa Niass kat dafa ne xalifuk leew na ñaseen goo gee nekkatul xalif ba daaneel na ko léegi moom mooy xalif bi la ilaha illallah laas ne ginnaaw nag doomu xalif ba Mohamed Niass kaddu yi nga xam ne kon yëkkati woon na ko xam ne carrément ne Abdoulaye Wade mii daa war a kon wàcc nguur ga Ahmed Khalifa Niass kon looloo ko miti ne kaddu yi le nit mënu koo baale te kenn xamul lii lan la lii tax na daal daaneel naa baay bi di xalifuk leew na ñaseen goo gee nekkatul kon xalif ba allahu akbar li koy mandargaal man Ahmed Khalifa Niass danaa organiser kon beneen gàmm bu bokkul ak ñoom seen gàmm goo gee Ahmed Khalifa Niass ci laas yéene kaay yemu ca ndaxte nee na ab sët kese waaw yëkkati kàddu yu jubadi yu ni mel nii d'accord ma ci tey te d'accord ma ci ëllëg Ahmed Khalifa Niass fàttali na bu baax a baax téeméeri million yoo xam ne kon président Abdoulaye Wade joxoon na ko may ko xalifuk lew na ña seen goo gee mais loolee yàggul dara ay weer la ca ginnaaw lan moo tax ba xalif bi jékki-jékki nii daal di kon soppeeku tribune yéene kaay ne kàddu yu Ahmed Khalifa Niass yooyee moo tax kon ba taalibe ñaseen yi dem ca këram nga daal di koy caxat-caxatee taal ko taalaale kon otoom ya réew mi ko tijee ne ginnaaw leew na ñaseen googee waaw njabootu Abbas Sall gi ak kunta kunta yi mujj nañoo wan kon Abdoulaye Wade ginnaaw la ilaha illallah laas ne kuréel gi nga xam ne kon moo njaboote imaam yi ak ñi nga xam ne dañuy gis waaw sàkku nañu ci Abdoulaye Wade mi le mu jox daal place bi koo xam ne ca kuréelu parti yi koy jàppale di waa fal 2012 la ne Abdoulaye na jox kenn ca ñooñee te dem toog imaam Youssoufa Sarr ak ñi mu àndal ne ay sénégalais ngi nii dee nañ ci mbir mi deret yaa ngi nii du tuuru ci mbir mi ñi ngi taal ay pono ci ay ruq-ruqaan yu ne di caxat-caxatee kon bërëb yi nga xam ne kon nguur gee ko moom di ay édifice public te dara kon waralu ko ludul candidature Abdoulaye Wade gile conseil constitutionnel kon dëggal ajuma ji ñu génn réew mi quotidien ne juróom ñooñee nga xam ne kon ñàkk nañ ca seenu bakkan waaw ñu ci bëree bëri kon am ca ay gaañu-gaañu rapport di bataaxal bi nga xam ne kon enquête bi feeñal na ko Abdoulaye Wade kon ak police bi la ñu jëm baaraamuk tuuma Walf Grand Place ne enquête bi nga xam ne génn na ci police boo bee dee woon fi nag di Fodé Ndiaye waaw ñi nga xam ne ñi ngi laam-laamee ne kon ñoo ko rey ñu jege PDS lañ la ilaha illallah ha maa la wax li ñeent lañu kon teg nañ leen loxo ay militant wu moo di boo jóob lañ ak Seynabou Wade bu Colobane yéen kaay gi ne enquête ba kay léegi mat na sëkk ak barke ñeent lañu kana kana gàttu zoo bokk na ca Mamadou Diop alias ñebe bokk na ca Matar Diaw alias alaaji délégué bokk na ca Carlos bokk na ca Farba Senghor ci Express News ne du ñu nangu benn yoon am xooxatal ku ñuy jéem a tiital moo xam ci biir réew mi wala ca bitim réew tax kon ñuy dellu ginnaaw loolee xalaatuñ ko tey te xalaatuñ ko ëllëg waaw parce que ñun ñoo gën a bëri ñooy majorité sénégalais yi gën a bëri Abdoulaye Wade kon lañu àndal te danañu organiser élection yi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru février ci nii ak ci ne opposition bi bu doon ay démocrate lañ dogal bi nga xam ne kon conseil constitutionnel jël na ko danañu ko nangu Abdoulaye Wade ci focus yéen kaay ca Tiwaawoon la yëkkatee kàddu ya xam le carrément ne ki ñu gañee na nangu ne gañee nañu ko félicité bu baax ki nga xam ne kon moo ko gañee Abdoulaye Wade ci grand place yemu ca ndaxte nee na Sénégal gii ay yënga-yëngal yàgg na fee am Serigne Mansour Sall ci grand place ne ku dem ba am juróom-ñetti fukki at ak juróom benn 86 ans la la war mooy dem di jaamu sa borom xalifug Serigne Abba Sall gi ne Abdoulaye Wade daa war a bàyyi nguur gi ci nii ak ci nee te dem kon jaamu ji boromam Mamadou Diop Decroix ci le point du jour ne xel sax xalaatul Abdoulaye Wade kon di génnee candidature am gi le opposition bi ñoo bëggul dem ci élection yi ñoom opposition boobu bee ñoo waa yaana maar sëy bii dox seen diggante mbaadu ci tas la jëm ca yéene kaay laaj di ca yéene kaay waaw tribune yéene kaay ne fuu malaat bu yaana maar danañu ko atte kon ci àllarba ji di ñëw ma nga ca kaso ba ba léegi ni le ndax lañ koy tuumaal mooy dóor Gaston kon ba gaañ ko futti ko def ko kon yaramu neen Gaston ne sama yaramu neen boobu bee laay bañ kon photo yi génn ci internet bi ak yu ni mel Abdoulaye Wade ci la Soleil yéene kaay ne ñaanal leen Sénégal gi le ca Tiwaawoon la ko xamle ca Tiwaawoon googee Le Quotidien yéene kaay nee na Abdoulaye Wade daal ay yuuxoo la ñu ko gatandoo ca Tiwaawoon ay yuuxoo ko gunge bu muy ñibbi Le Pays au quotidien ne c'est pas vrai Abdoulaye Wade kay dañu ko faa gatandu comme nañuy gatandoo buur ca Tiwaawoon googee tapis rouge kon la ñu ko lalal Abdoulaye Wade ci siiwal yéene kaay Direct Info laas ne du ma def lu yées la Abdou Diouf defoon kon ca 2000 élection yi leer nañ laa bëgg Le Pays au quotidien ne journaliste yi nekk ca France ak ni ñuy songee Sénégal gii bolooree nekk ca ginnaaw di bolooree homme d'affaires waaw yëkkati diwlin kon di ko xëpp ci safara si rek Le Pays au quotidien ne tubaab bi daal di boloore fi mu nekk nii bëgg-bëggam yëpp mooy nu muy def ba foqati port bu Ndakaaru bii ci loxol Dubai Port World Abdou Diouf ci tribune yéene kaay ne maa ngi ñaanal sama réew Balla Gaye 2 ci suñu làmb ne man de mbir mi ni ma ko gisee li xew sama réew ni ma ko gisee comme film yu ragal lu yooyee dem naa ca làmb jë Luc Nicolaï ci diggante Balla Gaye 2 ak Yékini Luc Nicolaï ne seen jàkkaarloo bu njëkk waaw ñaar fukki fan ak juróom ci yoruk mars ca Thiès la benn dëkk ñaari gaar la ilaha illallah premier jàkkaarloo Balla Gaye 2 ak Yékini jaay balaa ma caa dem danaa ko listaxaar de ah waay yow mani yow xam nga bal perdu yi daa am bu la dalee maar day taali mais foofee boo sàgganee kurpañ perdu yi dana fa am te bu la dalee moom maar day taali te ñun moom fi mu ne nii wax ji noppi nañ rek mooy rafle nañu